Uh, all along dafa nekkoon problème problem and ba léegi as we are going dafa nekk problème si society bi comme ni ñu ko waxee ni si mental health bi like in other society suñ visit si suñ outreach si particularly Buyam Soma ak other institutions yi nga xam ne nit ñaa fa dañ leen jàppa because feebari xel lañ am naka la leen nit ñi nekk di traité lan lañ leen daa defal foofu soo bàyyi xel most of the things that happens ñun si suñ boppa ñoo ko dee commencé ba pare su demee ba xamun ñun ñoo leen di gën a kick out so ñun suñ rôle comme ñu ne neen fu ñu nekk nii mooy ñu delluwaat baag si suñ cosaan yu ñu fee ko ñu delluwaati baag si suñ aada yu ñu bàyyi woon ba pare loolu mu ngi ñu doon dimbali torop like ñu ni neen suñ amee problème ñu wax ñu seeyaa ko together ñu ni neen suñ amee something lu nga xam ne waroon nañu mun a dimbale wante ñu dimbale wante man euh, damay delluwaat rek ci li mbokk yi wax ci liy indi feebar bi ndax arab dafay wax ni al wiqaayatu xayrun min al ilaaj maanaam fegu moo gën faju soo fegoo mën naa am doo faju xëy na ñàkk feebar mënut am waaye boo fegoo mën naa am booy faju it faju ba du metti kon ci fegu war nañoo seet nan la ñuy fegee xel xel bi nga xam ne yàlla moo ko bind ku nekk yàlla moo la bindal sa xel bu la neexee sa cër yëpp nga tiye ko waaye doo mën a wax ne suma xel maa ngi nii yàlla aar na xel ba nga xam ni kenn mënu koo laal te ku ko manqué rek ñu xam ni manqué nga ko kon nag loolu dañ ko war a aar dañ ko war a sàmm dinaa wax tuuti ci li mbokk yi wax ci sabab yi koy indi benn rek laa ciy jël wax ci te dinaa ko dëgëral bu baax muy drogue bi mbokk yi ñun ñëpp nañ xam ne drogue bi ay xar wala ay bëy wala ay nag duñ ko fi indi ay doomi adama yu doon ay nit wér dara jotul len ñu bëgg a seen kom kom ñoo indi kon ñoñu yit dañ am responsabilité bu baax ci ni xel di yàqoo di di nga gis ko xamni bu njabotam genné nga contane bu ñuy dem school nga contane mu dugg ci private am di topoto njabotam te loolu mu koy topoto yépp lu muy jaay la dikk yi di ci yàq xel yi ñeneen di yàq doom yi ñeneen te ñun dañuy dëkkandoog ñooñu di leen xam xam ni diw sàngam mii lii lay liggéey waaye pour ñoom dara du xew man damay wax nii wër nañoo gën a maanaam teg ay daan ci jaaykati drogue yooyu noonu muy taay bi la ak yeneen yi yépp surtout ma taay taay bi moom fi mu nekk nii bu njëkk ñoon ba ñuy nekk xale soo déggee turi taay da ngay tiit waaye fi mu nekk nii dangay ngay doo dee xam naka la waaw doo xam nu mu nu mu demee. dëgg la te ka koy jaay nit lay doon. te wóor na ko ni moom xam na ni lii muy jaay soo ko ni woon defar ci ay joyen ni ko xale yi di waxee. jox ko say doom du nangu du nangu kon loolu war nañ cee taxaw bu baax a baax mu dañ beneen bi ci des mooy bu fekkee sàggan nañu ba mbir mi xew. li mbokk mi wax lay wax nañ dawal yermane, ndax ñoñu mu dal ay nit lañu te ñun ëlëk mëna ñoo dal ma ngi doon waxtaan ak benn mbokk si radio bi benn programme bu ma seqoon nak Mr Samba mi ak benen way bu jugee tank tank mi ngi wane ni am ño xamni sax buñu indé sen nit ku amé fébaru xel buñ ko indé tur wañ lay jox du sen tur Mhm. adresse bañ lay jox du seen adresse fa ñuy wax ni fa la dëkk dëkkuñ fa. dëkkuñ fa dëgg léegoo léegi kooku dina dem ba tane ñu delloo ko ci fa ñu waxoon ni fa la dëkk buñ demee duñ gis kooka. léegi te ñoom duñ ko mën a téye parce que ñu ngi war a jël ñeneen ñoo xam ni ñoom ñoo ko gën a sonn because kii tane na waaw léegi kooku bu génnee ci mbedd mi fan la jëm. ay mbokkaam daw nañ ko nëbbatu nañ ko laa mën a wax. léegi kooku ndax affaire bi dafaa gën a garaawaat ñàkk yërmande passé wut loolu te loolu mi ngay xew beneen bi si des mooy da ngay gis li si gën a doy waar nga gis jigéen joo xam ni feebari xel la amee mu kër ay mbokkam sàggane ak jigéen ni mu foore kenn ku nekk soo gisee jigéen rek li nga war a njëkk a xalaat mooy sa yaay balaa kenn ñu bàyyi ko muy fanaan ci mbedd mi mu am keneen ku ko ëpp feebari xel ñëw di ko jëfandikoo ñaata ngay gis ci ñooñu ñoo xam ni ñi ngi am ay doom yoo xam ne xamuñu sax ñan ñoo jur ak ñoom doom yooyu góor googu ñëw di jëfandikoo jigéen ji am feebari xel moom moom xelam dafa wér moom kooku moo gën a feebar bu fekkee dof am na sax kooku mooy dof bi tigi te yooyu yëpp mi ngay xew mi ñàkk yërmande moo koy indi ndax am na benn maaman bu taxaw fale ni laaw soo jëfandikoo jigéen ji amut xel dangay am alal ñun yooyu lañ gëm yooyu lañ dee wax loolu moo leen ci dee yóbbu ñi ci gën bari loolu moo leen ciy yóbbu dañ lay gëm loolu jigéen ji ñàkk xel ñu koy tuddee dof ñu baal ma ci waxin bi soo fexee ba séq ak moom jëfandikoo ko di nga am alal wala di nga atteindre sa objectif maama ni yee leen koy wax su ko defee ñoom ñu ñàkk gëm yàlla gëm loolu ñàkk yërmande ñëw jëfandikoo ko xamoo la nga ko bàyyeel doom ja fu jëm ak moom nan lay def ak moom su yooyu yëpp ñun duñ sóoraale ngeen jéggal waaw kay jërëjëf Pita mbokk yi maa ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax mhm. man maa ngi tudda Peter Gomez pita John Gomez maa ngi liggéey Gamtel waaye di leen yëgal ne man maay chairman National Stakeholder Council bu mental health mhm. mental health bu ma ko njëkkee dégga li ma njëkkaa rabat ci suma xel mooy ñi nekk ab campement xamuma woon ki nekk télécoms fan fanweeri at naka laay xamee lu jëm si mental health waaye ba ma duggee ci biir ba xam lana ci ne ma ne dëgga dëgga lii nit ku nekk war na see dugal boppam xanaa nit koo xam ne amul xel te suñ bàyyee xel bu baax a baax dañ war a xam ne yàlla moo ñu sàkka ñun ñëpp ñu fi toog te yàlla dafa fonka nit mm-hmm. looloo tax baat bu jub wax na ne nit nitaay garabam waaye su dee nit nitaay garabam lana war a tax ba doomu aadama nit di war a taxaw xool sa morom mi nit koo xam ne xëy na dafa taagoo xelam nga wax ko ne da nga dof yaakaar naa ne yow mi ubbi sa gémmiñ ne da nga dof yow yaa njëkkaa dof mm-hmm. ndik te xel xel gi ñoo wax ci yow neewu fa mm-hmm. dañ war a baax a bàyyi xel bu baax a baax ci lii mun naa laajte benn laajte léegi nii te laajte bi mooy kan ci ñun fii moo mut yaakaar naa ne kenn ci ñun fii mutul te gestu wane na ne nit ku nekk ci juróomi minute bu nekk sa xel mi moom dafa naaw dem feneen waaye am na loo xam ne dafa doy waar dégg moom kaani la hmm. tey soo rombee si koñ yi ñan ngay gis ñoo xam ne dañ tàggoog seen xel uppa doole gi yëpp ndaw lañ tey soo rombee ci kër yu bare ñan nga day gis ñu toog si kër gi kër yi di tu seen jàmba wala du mu di doon uppa doole gi ay ndaw lañ te ci bunt kër yi lañoo toog di def seen yooyu ana waajur yi soo laajee waajur yi ne ma dara suma doom te danga war a bàyyi sa xel ne yàlla daf la daf jox responsabilité boo xam ne danga ko war a da ko war a mun a yóbbu ba faw waaye tey ñun waajur yi daal am nañ liggéey boo bare li ñu war a def lu jëm ci suñ ndaw yi li ma gën a dugal sa ci yëfi mental health lii la gis nga nit ki soo ko mënee dimbal daal bul ko def loo xam ne daal ëllëg daf koo loor ndigte amoon na benn bés dama doon romba rek ma gis nit ku tëdda si tali dem naa ba romba waaye xel gi ne ma dellul gannaaw ma dellu ganaaw ñëw gis ki tëdda ma ne ko booy jógal fi nga toog fi nga tëdda nii leneen mun naa xew mu déggal ma mu dal di puus waaye ëllëg si biir su doon dama continuer moto ñëw dox si kawam man bokk naa ci ñi nga xam ne waroon nañ koo sowe mhm. kon dañ war a def suñ boppa ci place yi ñi nga xam ne lii daf leen daal dal te soo gisee nit koo xam ne tey dafa tàggook xelam yow mi nga xam ne yaa ngi ooyee sa boppa ku am xel war ngaa mun a def sa boppa ci place yi nit kooku nga xam ne dafa tàggoo xelam gis nga loolu soo ko defee rek dina baax ñu ni neen la dafa doon programme boo xam ne xaw ma kana indi tur bii de waaye mun naa koo ooyee scientifique